salaamaaleykum ça va na yéen def man li ma doon wax rek en fait ci série bi vraiment kontaan naa kontaan naa trop parce que parfois dañuy jouer loo xamante ne li ma ci gën a neex dañ ciy gis sa bopp vraiment kontaan naa ci bu baax a baax mais nag benn côté ana moom ana moom xaw naa ko mere parce que ay Aïcha bu mu ñëwee di ko expliquer mënoon na ko wax. vérité bi waru ko woon a nëbb parce que loolu noonu day indi noonoo seen biir mënoon na ko expliquer rek ni ko man joon daf ma bëgg fii noonu moom mu gën parce que bu demee ba ci biir rek mën na jàpp ni kii daf koy xeex daal xam nga jigéen ak mu jigéenam mais mënoon na ko wax rek vérité bi parce que dëgg mooy njëkk mooy mujj mais instant noonu def kaa na bu boppam parce que mi ngi naan ko dama jàpp ni yoon joon ay xarit ngeen rek loolu moo ma mënoon na ko bañ a wax loolu mu wax ko vérité bi daal mais vraiment neex na torop daal neex na ñuy kontaan di ci gis suñu bopp bu baax a baax. waaw asalaamaaleykum waa Merzo brigade des ñu ngi leen nuyu di rafetlu seen liggéey bu baax a baax seen ci yi ngeen di doxal série yi ngeen di doxal série jaar si yoon di leen wax kaw si kanam rek ah, bonne continuation euh, di si wax sama xalaat rek te xam naa diggante. aana ak Njoon ak Aysa ñett ñi kaawu de dana nekk kaaw xam ne dana dana xaw jaxase kii bi parce que xam naa euh, Ana niruma ku ku nara a te Aysa tim gis nga bi ko Ana ne ko maa ngi déggante moom ñi ngi déggante ñi ngi bu baax daf ko soge xam ne kaa bu nekk dana nekk kaa bu critique dana nekk man nag dama xamul kan la si ñoon préféré gën a bàyyi kii ànd ak ki si des maa foog nag bu doon bu préféré ku muy ku ko moom la gën a continuer yaakaar naa ana lay gën a continuer moom la préféré ànd ak continuer ak moom foog naa parce que comme kooku moom moo ko disbel boppam moo ko gis bëggal ko boppam yaakaar naa moom la gën a génnal waaw beneen xalaat bi mooy si kaw euh, kii euh, militaire bi jiite ah jiite police bi fi ñu toll nii brigade bi. mooy euh, def na kaa bu rafet def na kii acte bu rafet ndax tey def na yëfu góor daal ni mu fexee ba rëccal aana kii bi moo ko seetaanee dama yaram dafa daw daal moo ko seetaanee dama yaram dafa daw lool parce que kidnapp bi ñu kidnappoon aana dafa xaw a métti lool te gis nga bi mu rëcc yëfu góor dëgg la def foofu. waaw benn affaire tamit am na si bi ko aana di ko wax di ko laaj ne ko ban problème nga am benn problème nga am xam nga day xaw a niroog fi ko Aïssa di waxee certifié bi ànd ko certifié yi nekkoon defoon defoon amoon problème bi encore mu ñëw di ko laaj lan mooy problème da nga am problème temps yi xam dana ko xaw a xelam na xaw a xalaat daal si neneen feneen la ko koy waxee waaw ah, mais jàpp naa ne li ko xaw a absenté mooy li ko waaj kidnappé kidnappé li ko waaj kidnappé moom lay xalaat fu mu toll waaw ah, parce que ban compétence la waaj am ba war ko mën a kidnappé moo ko jaaxal daal loolu moom dana mais man daal diggante Aïssa moom ak Anna moom foofu laa bëgg wax quoi Anna daal na teggi loo xam rek Anna moom wax dëgg yàlla moom moom xamul ne na bayal kale rek pour euh, John ak Aïssa ñu mën a ne waa man loolu mooy loolu mooy sama gis-gis ndax Aïssa moom wax dëgg yàlla na ko trop trop trop quoi. salaamaaleykum Loos TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñu ngi seetaan film bi bu baax bu baax waaw ñun li ñu wax rek film bi na am sens rek film moom mu gudd mu gàtt na am sens rek bu amee sens rek day neex waaw ñun sens bi rek la ñuy xaar xam nga tous les temps ñu ngi jël temps temps yëpp ñu ngi koy jël di seetaan film bi waaw na am sens rek na am mujj bu baax sens boo amee sens rek da ñu neex quoi. ma am sens loolu wax waaw merci. ma benn message tamit bu may jàllale peut-être euh, whatsapp bi xaw ma waa Meurthe ñi ngi am audio normal loolu desin ma leer peut-être euh, dama ko yaakaar rek moom ma lay wax ne maanaam film bi tamit réussir na neex na jàll na ñun ñëpp ñu ngi koy seetaan di leen ñaan rek li dal yenn série yi mu bañ leen a dal. waaw ngeen ñu am ay saison saison a dëgg yàlla ay saison saison maa ngi koy xaar ci yéen tam naa ci yaakaar waaw yeneen yeneen film fi jaar nag tout le temps ñoom tamit mooy loolu dañuy jouer dana neex mais fin la du am waaw fin bi du baax ndax tout le temps tamit ñu koy jouer dañuy dem ba comme ni ñuy def nii di ray di ray di ray di am ay acteur de film yoo xam ne tey bu ñuy di génn si film bu baaxul quoi waaw daa am yoo xam ne bu ñuy teel di génn si film nii baaxul. waaw comme si que li daloon suma juumul euh, euh, ba ban filmati la euh, ñoom saa neex seen film bi laay wax bi wiri wiri waaw boo xoolee ñoom seen film bi ko mu jot tax mu suux mooy ray ray yu bëri yi quoi waaw ray moom acteur de film yoo xam ne moom waruñu waruñu ñàkk ci film waruñu ñàkk ci film tout le temps ñoom ñooy dooleel gars yi ñoo lañ motali am na ñoo xam ne ñooy tax ñoo lañ seetaan ñoom ba ñu leen rey bëri na mais ban laalee seen acteur mag muy seexu naan loolu indi leen problème yu bëree bëree bëri bëri sànq seen dem ah di leen wax ñu fee ci côté boobu noonu waaw ay jàmbaar ngeen ay liggéeykat lan mais film série yi nii nii nii tout le temps comme yii nii moom ay rey mën na ci am mais dañuy xool fi ñuy coxati bu baax a baax côté yi ñuy rey waaw période bii nii ko si mel ne Jules César kooku. ku war a dund la ku war a dund la ku war a yàggal suñu bi la ndax fi mu ne nii ñu bëree bëree bëri boo xoolee daloon seexu naa ci wiir wiir moom moo leen dal foofu noonu quoi waaw boo xoolee fi mu ni nii tey boo ko rëccoon rek moom moom ba lu ko impêche wala moom lu wala mu dee ci bi rek moo loolu day bunt yu bëri yoo xam que ma yaakaar rek laay waxee nag mën na fët mën na fët ndax daa am film bi yoo xam ne dañ ci bàyyi dañ ci bàyyi wala bokk dañoo war a dee si fin film ba. comme ni koy tubaab di faral defee waaw chef de bande dëgg moom day dee ci fin ba xeex cooki fin ba daal ci la war a dee mais bu teelee dee rek mooy loolu noonu mais série bi moom macha allah kontaan nañ ci ñi ci bëggee acteurs yi li seen rôle yi ñuy joué mën nañ ko kontaan barki Seydina Mohamed duma kontaan trop duma ko tardé chaque chaque jeudi wala dimanche duma ko tardé billaay su ma ko tardé bu dee dama lu ma impé sax ba ma ko fat fat damay dugg YouTube ma téléchargé ko billaay seen interview yi seen lépp man duma ma bàyyi dara lépp laay seetaan du ma sax seetaan film bi dong ñoom ku ci am fu la invité wala seen kii yëpp du koy seetaan dama leen ñu bëggee di leen safoo macha allah. waaw moo wax tuuti si épisode bi ça a été bien passé nee trop te am na saas uti defati nañ ñombe laa ko mën a waxatee parce que si ñombe lañ dëkk wallahi chaque jour ñu ngi bégloo waa àdduna di leen jàngal lu bari bari di leen teg ci yoon macha allah ñu doxalee noonu la nu mu kasum vraiment lu mu doxalee ci film bi baax na daal comme ni ko nit ñi di waxee rek ñëpp suñu meloon ni moom àdduna bi macha allah jàmm rek fi bari parce que lii mooy dëgg ku deful yoon moom dañ laa war a teg ci yoon waaw loolu moom mooy dëgg te mooy la am. waaw Zil moom wax dëgg si yàlla keroog avant ma avant ñi xam ko waray Jean dama ne gars yi naan ma waaw Zil moo ko raay ma ne non Zil <tsk> doo Jean Zil boo seetee si film nga xam ne Zil euh, doo ray Jean ko parce que dëgg la Jean teg na ko lu nekk mais moom xam na fu jaar ak Jean daal <laughs> lu bari xam na ko si moo tax dëgg la te am te ko am fulla la si li muy see tamit. ku mën a doxaloolam la kaxaama billaay vraiment bu baax a baax di leen encouragé rek dana fi nga jàpp foofu la wallaahi ñu ngi kii bu baax yal na leen gën a jàppale rek taxaw leen macha allah kontaan bu baax si ñoom billaay asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu bu baax maanaam man tey maa ngi wax lu dawoon démb ci série bi maanaam mooy ci euh, brigade de femme boobu noonu démb ci ba ma ko seetaanee bon ma gis ci loo xam ne tamit euh, lu yéeme am tamit loo xam ne tamit lu garaaw ci surtout ci Jules César maanaam ñu ne nit ki moom ndeysaan du bañ mu ko kii ko defar ci àdduna maanaam moom wane na ngor dëgg dëgg dëgg ndaxte gars yi ñoo nañ ñoo nañ ko nañ dem moom tamit dafa blank bañ mu ne moom daal du dem il faut mu xam daal lan moo rey ki nga xam ne moo di patron am ci biir loolu maa ngi waxaa tamit ci li nga xam ne maanaam moo di Abdel Abdel moom du nitu dara ndax moom moo dem trahi ba pare en plus euh, nekk foofu tamit di wane ay kanamu innocent yooyu et que fekkee du innocent moom moo def lépp waaw moom moo def lépp waaw di wane ne daal maanaam moom defu dara te moom moo def lépp nag wala donc na ñu ngi leen di nuyu ci loolu tamit bu baax di leen jégalu tamit asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. waa waa Lu Xew TV man nag euh, daa am lu ma lu ma bëggoon laaj tuuti si ka Jules César quoi. parce que gis naa gis naa benn instant mooy fu mu doon dafa ak ak John mooy foofu la njëkk a après foofu John da koo jox benn benn yére après mu mu sol après mu am lu mu dóor mu am lu mu dóor kii John après mu daal di mu daal di génn après kii ñëw quoi wala xaritam bi ñëw après ñëw si oto bi ñu dem quoi waaw après ma gis benn instant tamit gis encore nekk si prison. nekk si prison nekk ak euh, ak kii ak buur ak buur après bu ñu bu ñu génnee mu nekk mu nekk beneen beneen génn quoi léegi man ña ñaari génn ñaari génn si stage gis naa mu génn ñaari yoon wante gisuma moom fu mu duggee ñaari yoon quoi loolu moom moo xaw a jaaxal tuuti.